أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu waxa nahnu ala mawcidin maa hadha alsaxaabi aljalil allazi daha bi kulli cheyin min ajli an yazfara bi nicmati lislaami tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala noo ngi ànd ak yéen ci kenn ci góor ñooñu waroon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yàlla wax ne ñoom dong ñooy góor rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi ñu ngi ànd ak yéen kenn ci ñooñu nga xam ne dépassé na ay effort ba bakkanam sax ci islaam la des ngir rek islaam kawe waa jooju ñuy waxtaane tey laqad taraka almaal wa raaxa wa rafahiya bàyyi na alal bu dee alal dong moo doon tax nit du sonn ci àdduna dëgg-dëgg mbokk boobu waa jooju warul woon sonn bàyyi na noflaay bu dee fu nooy fu lix fu rafet rek moo doon tax nit du sonn ci àdduna kon moom warul woon sonn waaye bu dee lu neex ci lu ñuy lekk ci lu rafet lu ñuy sol fu nooy fu ñuy tëdd war waay wu nuy war waa ji ñu bëgg a waxtaane mbokk yi bàyyi na loolu lépp wa aasa zahidan mutaqashifan wa huwa fi qimmati saada limaza li annahu saara musliman wa muwaxidan waa ji dund na nekk ku dëddu àdduna àdduna neex-neex yooyu ñu doon wax sànq alal jooju waa ji bàyyi na ko ngir lislaam neex-neex yooyu waa jooju bàyyi na ko ngir lislaam xumb-xumb yooyu waa jooju bàyyi na ko pour lislaam rafetaay yooyu waruwaay yooyu yu sedd yooyu yu nooy yooyu waa ji bàyyi na ko pour lan pour dund pour nekk jullit pour dund pour nekk mu waxit kuy wéetal yàlla tabaraka wa taala ndeke sonn pour nekk jullit sonn pour nekk mu waxit benn doomu aadama buy wéetal yàlla ndeke boo sonnul doo ko am xolawaa ji pour mu nekk jullit li mu ko jaral mu bàyyi lii lépp pour mu nekk jullit waaye mu bàyyi lii lépp pour mu nekk jullit waaye en même temps mu nekk jullit boo xam ne day wéetal yàlla day kennal boroomam moo tax mu bàyyi lii lépp ngir lislaam innahu awalu safirin li daawati ila allahi fi lmadinati almunawara waa ji mooy premier ambassadeur bu yonent alayhi salaatu wasalaam yónni mu bàyyi ko mag war a ñëw madinatul munawar pour jàngale lislaam ambassadeurs yi mooy ñi nga xam ne dañuy dem di teewal seen réew ci dara pour représenter seen réew xoolaale seeni citoyen yi nekk ci dëkk yooyu su boobaa ambassadeur boobu lu muy aar mooy ay intérêt dëkkam ambassadeur bii nag moom xam ngeen lu ko yóbbuwoon pour ñu kennal yàlla tabaraka wa taala pour ñu topp yonente bi alayhi salatu wassalaam innahu daai alshahid alladi xazina alayhi nabi sal allahu alayhi wa sallam huznan shadid kii kenn la ci wootekat yi waxuma la nekk na sahaaba waxuma la dee na ci lislaam waaye wootekat la woon parce que moom moo préparé Médine balaa yonent bi di ñëw kër yépp mu dugal fa diine ixwatal iman keroog bi waa ji faatoo yonent bi da amoon na ay sahaaba amoon na cent vingt quatre mille sahaaba ñoo ko waroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekki góor ak jigéen amoon na ñu ñuy wax xulafaa rashidin am na ñuy wax mubashirina bil janna waaye kii bi mu faatoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam musta métti lu musta naqar lu faatu ku raw faatu kii waa ji innahu sahabi jalil musab ibnu umayr musab ibnu umayr mbokk yi moom la ñuy waxtaane tey ki nga xam ne waa madina ñoo ko tuddee woon al muqri doon jàngal waa madina quran bu ñu tuddee ko al muqri jàngkat bi waa ji gàddaay na ñaari yoon jóge màkk dem éthiopie loolu dina feeñ ci dars bi bu soobee yàlla tabaraka wa taala qissatu islaamihi radiallahu anhu wa ardaahu suñuy nettali moom musab ibnu umayr naka la duggee ci lislaam mu ne laqad kaana musab qabla al islaami huwa an'amu fityaani makk loolu ñëpp xam nañ ko balaa lislaam di ñëw musab mooy xale bi gënoon dund makk mooy xale bi gënoon nekk ci ligs mooy xale bi gënoon jantal mooy xale bi gënoon rafet am na benn terme bu gars yi di utiliser yenn saa yi langage booy disco yi ñu ne waa ji sapeur la soo déggee ñu ne kii sapeur la lu muy tekki yow laa laaj laaj bi waaw. non booy lu tontu sama laaj bàyyi ma ma wër gaay non mooy dafa mën a solu lu mu sol yépp ay nuroo du sol suppu kànje du ko jaxase daf koy def ba mu rafet ba fu mu romb rek gaay yi dañuy tourné di ko xool voilà Musab noonu la meloon radiallahu anhu wa arda an am moo gënoon dund moo gënoon xéewlu ci xale yi màkk fa lam yakun hunaka man yalbas misla siyaabihi amul woon ci màkk kuy sol lu Musab di sol amul parce que dafa fekk famille alal ci la judd fekk yaayam nekk fekkoon ne tey la ñu ne milliardaire amul woon wala yada'u misla itrin hatta innahu kana iza marra min tariq wa jaa min tariqin ba'dahu bu fekkoon ne musab waxuma sax yére mais parfum bi mu doon def su musab sol woon ba pare ba kaalawu amaama da ngay gis jigéen ñi di toppandoo kaala musab ne man tey ni musab di kaalaw walaay kaalawu léeg-léeg nga gis su jaaree ci mbedd ba romb ku jaar ci mbedd mi dañ naan musab jaar na fii nuñ koy xàmmee ndax parfum xetu parfum bi mu doon xeeñ ñun bu ñuy xeeñu parfum ñun bu ñuy xeeñu parfum parfum bu seer boo ko amee parfum boo fi jëndee cent mille da nga koy naya laal bañ nañ ko ba benn raakol bu tuuti lañ ci def nii ngay def rek nii nii dañ lay toqal mos am nag yooyu la daan jël di ko sotteeku ba mu jeex mu sànni butel bi moo tax fu mu jaar ñu xam ne jaar na su jaaree ci mbedd di ñëw ngelaw li bu nekkee ne la ñu xam ne mos ab moo ngi ñëw moo tax Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu wa ardaahu laqad marra Mus'ab ibn Umayr min haadha tariq mimma yajiduuna itrahu aljamil gis nga ñu ne bu jaaree ci mbedd mi da ngay gis parfum bi di xeeñ beneen côté bi fu ngelaw li fu mu jaar bu ngelaw li jàkkaarloog ñeneen ñi nga xam ne moom fi mu jógee fa la ngelaw li jógee turam moo ko fay njëkk balaa tànkam di fa yegg si lu tax parce que parfum bi mooy wax ñooñu musab moo ngi ñëw kon kii dundoon na ci lu neex kon kii dundoon na ci jàmm waaye keroog ba mu gisee lu gën loolu mu nekk noos yooyu yëpp liks woowu lal yooyu lekk googu naan googu yére yooyu daf ko faa bàyyi ne ñukk ixwaan yi laqad kaana laa yushgiluhu say siwa zaxrafa dunia jamono yooyu musab gisagul lislaam li ko yitteeloon mooy lu rafet ci àdduna rek waaw moo tax bu dee daal bu dee yére bu dee kaala bu dee parfum lu nekk lu ci gën a cher lu gën a rafet lay sol parce que bu joxeñee ñu dagg loolu waa ji naan dama bokkoon ci famille boo xam ne kullama uridu muhayya lépp lu ma bëgg rek waaj nañ ko mil malbas wa makal wa mashrab ba markab benn waay moo ko doon nettali quoi ajo xam ne moom tamit noonu la meloon comme musab moom lu mu bëgg rek dañ koy def lu mu lekk su ne nangam laa bëgg ñu indi ko kenn du ko ne amul su ne naanu sàngam laa bëgg gaa yi dañ koy indi ji kenn du ne ko ne amul su ne tey oto sàngam laa bëgg a yéeg wala avion nangam laa bëgg a yéeg gaa yi indi ko kenn du ko ne amul parce que am nañ ko lu ñuy lekk lu ñuy sol lu ñuy naan lu ñuy wax lu mu bëgg rek dafay fay nekk noonu la mos am meloon lu mu bëgg rek am ko waaye ay àdduna rek moo ko yitteeloon mais keroog ak taaru àdduna naam musuloon xam xiif wala mar wala déedéet noos rek moom moo nekkoon mbiram waaye xamoon na yonente bi alayhi salaatu wasalaam xamoon jikkoom moom Mus'ab benn bis toog na di xalaat gis jeunes yi màkka yi ni ñu toppee yonent bi muy xalaat kii lan la ko ñuy toppee lan lañ gis ci moom xelam xam may ko ne kii day mooy as-sadiqul amin loolu moom leer na kon gars yi toppee wuñ ko dara parce que amul lu mu leen jox amuñu lu mu lu ñu lekk amul lu mu leen jox ci naan amul lu mu leen jox ci lu ñu war amul lu mu leen jox fu nu dëkk kon lan lan ko war a toppee fa lamma kaana mus'ab illa an kasara kullul jawa hawaiz wa taraha kullul aqabat wa zahaba li yas'al an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari ci ñun li tax léeg-léeg du ñu mën a dund dëgg wala léeg-léeg ñu gis dëgg waaye duñ ci mën a jot parce que dafa am ay barrières yi ñu baare lu tax yow doo dem jàkka sàngam non parce que gis nga barrière lu tax yow dee doon déglu ju waxtaan sàngam c'est parce que gis nga ay barrières lu tax yow booy def booy doo ay barrières moo dox suñu diggante ak dëggu yàlla bi mos am nag barrières yooyu pour mu génn ci lim nekkoon barrières yooyu la sempi sànni ko ci ginnaawam doxal tànkam ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam laajal ko boppam yonent bi tontu ko boobu yonent mu ngi woon daarul arqam ibnu abil arqam daarul arqam ñun ñëpp xam nañ ko ci histoire moo doon kër gi yonent bi doon préparé sahaaba yi moo tax souvent boo bëggee dund diine te doo dund doo jàng xayaatu sahaaba wala doo jàng siira dafay bëri looy ñaxtu dafay bëri looy critiquer te xamoo foo koy teg wala da ngay dund diine mais doo am formation moo koy ar rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent dafa formé sahaaba yi daarul arqam wala lay yaree moo tax sahaaba yi am formation daarul arqam ba léegi bokk ñoo ngi nekkoon Medine suñu leen di laaj naafiq yi fan lañ dëkkoon fu ngeen di tontu Medine suñ leen di laaj ndax muhajirin am na ci naafiq am na ci ku musa murtat koy tontu parce que dañ leen formé ba ñu ne këkk loolu tax formation diwee yooyu ngeen di tuddee lay lay la imaaniye yi mënul ñàkk ab jullit fokk mu formé wu ci diine formation ne kenn du loo ko defal ci mbedd moo tax boo bëggee dund diine dafa am yoo xam doo ko déglu ay lay la imaan yi ay bidaa la loolu doo ko déglu parce que ñi la koy wax amuñu tolluwaay bi xamuñu jànguñu siira xamuñu dund saxaaba yi bu leen déglu dañ lay tardel mooy guddi yi ñuy def pour ngëm yàlla yi di yokk loolu mooy lay la imaan ya ay guddi yoo xam ne da ngay génn sa kër ngeen wéet ci lu mel ne jàkk wala bërëb bu wéet ngeen daje foofu ngeen def ay jaamu yàlla loolu lu muy jur mooy jaamu yàlla yooyu nga leen di formé ak waxtaan yooyu nga leen di formé mooy pour bu ñu génnee bu ñu demee ci kër ga ak bu ñu demee ci nit ñi ñu mun a dékku jafe-jafe yeeg coono yi waaye bu ñu demee ci kër yi ñu mun jaamu yàlla. mu ngi mel ne kuy dem di chargé ji batterie da ngay dem ba chargé batterie ba mu fees nga daw nga doog a daw loolu mooy formation bu yonente sallallahu alayhi wasallam doon formé jullit yi daarul arqam. benn boroom xam-xam day wax ne daarul arxam ku fa daan dugg sa tànk ndeyjoor mooy njëkk a dugg balaa beneen bi ñëw da ngay waat ci yàlla ne càmmoñ bi mooy fekk mais ndeyjoor bi du mës a fekk càmmoñ bi moo tax dóor nañ leen rey nañ leen lakk nañ leen weer nañ leen ci naaj kan kan moo ci murtat ba ci jigéen ñi kenn mësta dugg daarul arxam génn murtat musul am wala génn nekk naa feex kon fokk ñu delluwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kër yooyu mu utoon tudde ko daaru arxam te yéen tey ngay tudde ko ay seese ki markaz waaye du nekk rek kër gu ñuy tëj wala jàkka ju ñuy tëj jàkka joo xamante ne dafay def liggéeyam wala sees boo xam ne dafay def liggéeyam comme daaru arxam nu mu doon defee liggéeyam ixwatal iman keroog bu mus ab yégée ne yonent bi mu ngi daaru arxam mu daal dem dugg foofu bi muy dem daaru arxam da doon njëkkante ngelaw li tànkam yi da doon njëkkante ngelaw li ngelaw li li muy gaaw gaaw gaaw gaaw ulama u siira nee nañ musaab moo leen gën a gaaw pour egg ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon dafa ko xiifoon soo déggee ñu ne diw day njëkkante ngelaw li ça veut dire que mooy dafa yàkkamti fi mu jëm xoolal ngelaw li li muy gaaw gaaw gaaw gaaw da ngay dégg ñu ne la weeru koor yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a tabe ngelaw li ci joxe wala ngelaw nu mu gaawee ak ni muy joxee ñëpp ñëpp di nooyi ñëpp di féex di sedd ñu ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko gën a tabe lu ñu la bëgg a wax lu ñu la bëgg a wax ci ne Musab bi mu déggee yonent alayhi salaatu wasalaam mu ngi daarul arqam njëkkante naa ngelaw li wa hunaak wa hunaak fi daaril arqam raa annabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa saafahahu wa jalasa yastamiu ilayhi allahu akbar ci daaru arqam la musab amee saafonteeg yonent bi nuyu yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nuyu ko saafonte ak moom loxoog loxo yaram ak yaram waaye yonent musab toog yonent bi di wax muy dégg allahu akbar lu rëy loolu xéewal boobu mbokk yi musab mu ngi ko amee daarul arqam mu ne foofu ci daarul arqam nekkul lu dul ay minute ay seconde wa ma hiya ila lahzat hatta wajada musab qalbahu wa lisana yashhidani an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah foofu ci daarul arqam la musab toogee di déglu yonent bi yonent bi di wax muy dégg foofu la yëgee ci xolam fees na del del del ak ngëm foofu la gémmiñam gi xottee ko làmmiñ bi tudd baatu seede yi seede ne yàlla kenn la muhammad yàlla ko yónni waaye musab bi mu duggee ci diine ji bëggul métti yaayam bëggul lu métti yaayam parce que benn doom la te yaay ji bëgg na ko bëgg goo xam ne mooy li ma leen doon wax sànq ci ay xéewal ki teraanga du question ne teraanga yi la bëgg a ñàkk déedéet la bañ a ñàkk déedéet dafa bëgg yaay ji ba bëggul lu metti yaay ji te xam ne ne yaay ji bu yëgee ne mu ngi ci diine ah keroog yaay ji dina am lu ko metti mu nëbb ko nekk ci diine lislaam waaye nëbb ko noonu la def daf ko daf nëbbatu wa munzu tilka lahzaat ci seconde yooyu ci minute yooyu la xale bi daal di tourner xam ne ndekee àdduna du dëkkuwaay nekk ci noos nekk ci lu neex ci lu ñuy lekk lu ñuy naan lu ñuy war wala foo di dundal bakkan ndeke taxul doomu aadama ñëw ci kaw suuf foofu la Musa xamee loolu lan la def mooy mu génn ci yooyu mu nekkoon yëpp loolu mu doon wanew loolu mu doon sol loolu mu doon lekk loolu mu doon naan Musa daal ciy simmeeku basat mu xam ne lii ndeke min asatiril awwalin ci ay léeb léeb ak lépp woon la mu daal ci génn baset waaye jàng nañ ñun ñëpp ci diine benn ibaara bu ñuy wax yubtala ar rajuli ala qadri diinihi yubtala ar rajul ala qadri diinihi danañu nattu nit kem saloo diineem saa yoo déggee nit nattu nañ ko ci diineem mooy ni diineem toll noonu lañ ko nattoo gis nga ñun tey kenn nattuwunu parce que suñu diine moo bëriwut waaye yonent yi ñi ëpp natt ci kaw suuf mooy yonent yi alayhimu salaam lu tax parce que seen diine dafa nekk ci combaxtal gi au sommet moo tax gis nga ñoom ñu ëpp natt wàccal wàccal wàccal nit saa yu amee diine bu ne keng bu nekk ci kaw noonu la natt yi di toll kenn ci ñun bu ko amoon léegi rek natt yi commencé ci kawam lu ne lay gis lu ne lay dégg bis bu nekk moo ngi ci kaso yi wala bis bu nekk ñoo ngi ne dañuy lakk këram wala bis bu nekk ñoo ngi ne dañ koy assassiné wala bis bu nekk ñoo ngi ne ko parce que diine moo toll noonu mu ne ñu ne yubtala ar rajul ala qadri diinihi gis ngeen mus ab démb kenn nattuwu ko woon lu ko neexoon la lekk lu ko neex lay naan fu ko neex lay dem lu ko neex lay sol lu ko neex lay dégg mais tey ñu xool ndax mus ab noonu mu meloon démb noonu lay mujjee mu ne mus ab nëbb na diineem ca tàmbali mbir mi xawfan ndax ragal min ummihi ci yaayam ñenn ñi ne yaay ji moo toroon yaay ji moo nekkoon borom alal ba pare garaaw moo tax mu ragal yaay ji ñenn ñi ne déedéet dafa bañoon lu naqari yaay ji rek waaw yaay ji jigéen ju mënoon góor la moo tax ñu ne daf ko ragaloon waaye mbokk yi walakin al bala sana saabit benn waaye bu tudd Ousmane ibnu Talha mooy suivre Musab Musab di dugg di génn di dugg di génn ba ne dagaj daaru arxam ñoom xam nañ ne ku dugg daaru arxam bu génnee day changé ñoom xamoon nañ lool allahu akbar loo tax ndeysaan place yi am yàlla yëpp place yi am yàlla laa wax place yi am diine ku fa dugg ku mun nekk booy génnee da ngay changé parce que yàlla nga fay jële ak yonent bépp place su diine bu nit dem changé wul jarul mu fay delluwaat bu fekkee dañuy ñëw ci jàkka ji te duñ changé jarul ñuy ñëw ci jàkka ji waaw foo mun a dem te doo changé jarul ngay dem foofu yii féeri màkk xamoon nañ ne daarul arxam ku fa dugg changé Ousmane ibnu Talha bi mu gisee mus ab dugg foofu waxul dara mu ne pat noppi mais mu ngi koy bàyyi xel bu jékki-jékki dégg musab di jàng alquran lan la def moom musab moom Ousmane ibn Talha bu jékki-jékki gis kaaba ga musab di julli mu dem boole ji ko ak yaay ji xaaru sax ñaar demal ma ñëw dafa dem boole ji ko ak yaay ji rapidement buñ ko boolee lan lañ ko mënal benn doom la mesure na kenn mëntu koo dóor waaye bien yi yaay ji amoon yëpp yaay ji da koo nangu pour ne da koy mbugal pour ne da koy toroxal waaye ndeke souvent nga bëgg ci nit dara lu bon ndekee xamoo ne loolu nga bëgg dara jaam lay yëkkati mi ngi mel ne suratu yaasin waajoo yaay yàlla di ñu nettali ki ñëwoon doon dimbali yonente ya gaa yi rey ko bi ko gaa yi reyee ñoom dañoo yaakaaroon ne waa ji perte na torox na waa ji nekk biir aljanna di zibile naan yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min almukramin ñoom la ñoo yaakaaroon waa ji jeex na pare na rey nañ ko xoolal waa ji ndeysaan mi ngi biir aljanna di yuuxu moom lan mooy mébétam tey mooy ñi ko rey jàppoon ne jeexal na gis tey ci xéewal yi muy dund ne yaa layta qawmi yaalamuun bi ma xafara li rabbi wa jaalani min almukramin dañ ko rey rek yàlla ne ko qiila duxulil janna ñu ko dugal aljanna amul sax jamono ma ñëw allahu akbar musab ibnu umayr mbokk yi yaayam nangu na lépp ci ay xéewal yi mu ko defaloon waaw commencé ñu commencé di ko lor ci biir màkk di ko dóor waaye yëguñu ne leeraayu ngëm-ngëm ngëm kenn amul jumtukaay booy foqar ñee ngëm ci nit su nit xasee am ngëm waxuma mu gëmantu de su nit xasee gëm laa wax ngëm ngoogu kenn mënatu koo dindi léeg-léeg nga gis guy gu sax ci dëkk juróom fukki at téeméeri at ñaar téeméeri at wala wala bis ñëw ñu soxla foofu ñu indi ay moyens yu déjjiti guy gi mu dem wala léeg-léeg nga gis benn tabax bu def ci dëkk nangami at ñu soxla foofu ñu ñëw raser tabax ba waaye ngëm nag du loolu ngëm kenn mënu koo dindi ci nit allahu akbar xool leen saharatu firaun bañ ne aman naa bi rabbi Moussa wa Haarun firaun lan la leen wax danaa leen rey danaa leen yeew ci garabu tàndarma yi danaa dagg seen loxo ndeyjoor seen tànk càmmoñ lan lañ ko wax defal li ngay def àdduna rek nga mën alaxira mënoo fa dara ñun ak yow ñoo yem allahu akbar gis ngeen ngëm kenn mënu ko dindi ci nit te ñooñu ci ay seconde la ngëm gi dugg ci ñoom ay seconde la leen yàlla wërsëgal ngëm waaye ñu ne keng ñoo gën a dëgër ku fi am téeméeri at parce que ngëm gi dëggu na te xam na ne dañ leen di rey Firawna loolu leen wax wala usallibannakum fii juzuin naxla danaa leen dugal Abdul Hamid gis bi muy firi aaya bi dane fii boobu yàlla utilisé ci aaya bi mooy daf leen wax ne dinaa leen dugal ci biir garabu tàndarma bi naa leen yeew yeew goo xam ne ku ko gis day mel ne ci biir ta garabu tàndarma bi laa leen dugal waaye yemul ci loolu mu ne dinaa dagg loxo ndeyjoor loxo càmmoñ xool loolu mu metti nu mu leen menacé ñooñu xam na ne daf koy def waaye ñu ne ko defal lu la neex àdduna bi ñu ne yow rek ñoo fi yam alaxira munoo fa dara tus nga fa waaw àdduna rek nga mën alaxira ñu ne yow ñoo fa yam waaw bi mu yokkee ay waxam lan la ko ñooñu wax dañ ko ne suñu yaram yi nga mënal dara mais suñu imaan mënoo ko jot puisque bala ngay dem ci imaan yi suñu bakkan génn àdduna moo tax ku am ngëm yàlla kenn mënalu la dara musab jéemal nañ ko lu ne xañ nañ ko taraangay àdduna dóor ko waaye yëgut yëgatul woon ni dëgg dëgg dëgg mu ngi ci naqar mu ngi ci jafe-jafe wa kaana musab wax nañ ko léegi min anami naasi ayshan qabla alislam fa lamma aslama zahida fi dunya wa taraka zinataha wa tafarraga lil ibad wa talabil ilmi ay baat yu ñuy jëriñoo mu ngi fii ci ibaara bi mooy musab ku bëggoon àdduna la balaa lislaam di ñëw waaye keroog mu duggee daaru arqam ba saafoonteeg yonent bi ba dugg ci lislaam musab bàyyi na mbirum àdduna lépp la bàyyi fële la ko teg ci lan la jublu jaamu yàlla ci lan la jublu sàkku xam-xam waaw tey di nga gis ci ñun nit ñu bare bari waaw waaye léegi man de tuub naa ko génn naa ci affaire yi waaw d'accord li nga def baax na trop deux mois trois mois quatre mois weer at juróomi at ba léegi waa ji mënagul mën a feragul ijji mënagul liir fatiha kon du dëgg musa ab keroog ba mu duggee ci lislaam ñaar ñoo ko yitteel jaamu yàlla ak sàkku xam-xam parce que xam-xam mooy dundal jaamu yàlla gars yi sax dañuy wax ne nawmul aalim afdal min ibadatil jahil nelawu borom xam-xam borom xam-xam bu am xam-xam tëdd di nelaw julli jot mu tëdd di nelaw moom moo gën jaahil buy julli moo gën jaahil buy woor moo gën jaahil buy aji parce que kooku xamul dara kon dañu war a ut xam-xam te li garaaw tey mooy ci ñun dañu bëgg a góorgóorlu te duñ jàng loolu mënu nekk yonente alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla naree yónni lan la ko wax qaatil qaatil la ko wax xeexal igtanim saytir ndax yi baat la ko wax daf ko ne iqra iqra mooy lan mooy jàngal kon foog ñu jàng ku bëgg a dund diine nga bëgg a am bànneexu diine bànneexu jaamu yàlla loolu ñu naan xam-xam mooy xorom ci cin aha boo jàngul da ngay dem di jaamu yàlla rek mais du saf dara ci yow parce que doo xam lii ngay def lan la du am sens Musab moom looloo tax keroog ba mu dummóoyoo caaxaan yi mu nekkoon dugg ci diine li mu njëkk a soxla woo mooy jaamu yàlla ak xam-xam naam fa laqad manaathu ummuhu min sarwatiha gis nga yaay ji tere na ko bépp teranga lépp lépp la nangu hatta yëre yi dàll yi sax da ko nangu waaye Musab yëgalul bopp dara moom moo tax Ali ibnu Abi Talib nee na ndeysaan benn bis dañ toog ci jàkka ji rek kaaba gi mu ne ma seen musab di dugg si xoolal musab mu du mu yónnee di woddoo saako xam ngeen saako pombiteer am na saako yu muy nekk saako pombiteer rek saako soble du benn de saako pombiteer comme loolu la musab di ñëw daf ko yére di ko sol dafa yére benn beneen bi mu def ko sër woddoo ko xoolal koo xam ne foo foo xam ne ñëpp bëggoon nga mel ni yow jigéen ñi màkk yëpp dañu bëggoon nga nekk xale yi jigéen yëpp dañu bëggoon nga nekk seen jëkkër ndax li nga noog ni nga meloon mu mujj day for ay saako takkale ko benn bi mu dagg ci digg bi def ko yére mu wàcc beneen bi mu daal di koy woddoo mu nekk sërëm mu te amul problème ali nee na dañu toog ci jàkka ji ma seen mus ab mu ne ñun ñëpp ñu jooy keroog ndax kii nu mu meloon hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndeysaan jooy na keroog ndax xale bi ni mu meloon démb ak ni mu mel tey mooy mbir mi yitteel na ko dëgg la ci moom triché wu ko mbokk yi musab radiallahu anhu wa arda nekk na koo xam ne génn na ci bànneexu àdduna allahu akbar bànneexu àdduna yooyu mu génn lan moo ko ko jaral mooy yàlla ak bi yonent moo tax mu ne wa xaraja musab min tilka niam alwaafira allati kaana yaisu fiha musab génn na ci bànneex yooyu nga xam ne moom la doon dunde démb ñu wér mu bànneex yi waroon ko musab génn ci cay fu mu jëm mu tànn mu siran mu tànn mu gënal alfaqr waljuu ma al iman allahu akbar mu tànn xiif mu tànn ñàkk gu ànd ngëm yàlla ndekki ci dund ci lu neex te amoo ngëm amul benn njëriñ waaye nga nekk ci xiif nekk ci mar nekk ci ñàkk gu ànd ngëm ndekki moo gën ci lépp lu doomu aadama di def waaye nag ku amul ngëm mënul xam loolu gaa yi dañuy wax ne ku am yàlla ñàkk lépp kookoo am ku ñàkk yàlla am lépp amul dara ku am yàlla ñàkk lépp kooku mooy ki am ki am lépp te amul yàlla kooku amul dara saxaaba yi loolu lañu xamoon moo tax dañoo jëloon yàlla def seen xol jël àdduna def seen loxo suñ demee ba gisuñu ñu ñu xam ñu sànni àdduna daal des ak yàlla ñun contraire bi lañ def dañoo jël yàlla teg suñu loxo jël àdduna def suñu xol bu ñu sonnee ñu sànni yàlla daal des ak àdduna waaw ñun dañoo inversé affaire bi moo tax mënuñu leen dab mënul nekk mu ne mujj na nekk xale bu góor bi nga xam ne danaan xeeñu parfum daan dund ci lu neex loolu ndeysaan daan sol yére yu ko neex di tëdd fu ko neex di lekk lu ko neex muy mujj na su ndekkee du añ bu añee du reer buy tëdd ci ay xotti saaku lay tëdd buy sol ay saaku lay sol radiyallahu anhu wa ardaahu mujj na nekk yaakulu yawm wa yajuucu yawman day lekk bis xiif bis na gëlee mu saalix ga tey musab day lekk suba day woor parce que suba du am lu mu lekk day woor allahu akbar radiallahu anhu wa ardaahu waaye mujj na am aqida boo xam ne romb na ñëpp ci pas-pasam boobu lu tax ndax moom ñëpp xam nañ ne tirisewul ndax fa mu bàyyeekoo moo tax nee na ànd na ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaroo ci keppaaru yonent bi ci jamono joo xam ne Quraysh ñu ngi noonu yonent bi di ko mbugal amul luñ ko deful ci metit ba mus ab gàddaay génn mag dem Habasha mu nekk fa diir lu yàgg ba ci yàgg mu daal di dégg waa Quraysin tuub nañ gëm nañ yonent bi mus ab daal daw delsi ndeke xabaar yu naxaate la woon dañu bëggoon saxaaba yu delsi ba ñu rey leen bi mu ñëwee fekk léegi la terrain bi gën a métti gën a tàng yonent bi ne ko delluwaatal xabas mu daal di delluwaat kon Musab ci dundam gàddaay na ñetti yoon gàddaay na ñaari yoon Éthiopie gàddaay na Médinatul Munawwara waaye jàngaatale leen kon Musab ñëw na Afrique kon bu nekk bokk na ci saxaaba yi ñi ñëw Afrique parce que Éthiopie fan la nekk Afrique la nekk kon Musab ñëw na Afrique ndeysaan ndeke information yi mu doon dégg falamma alima anna alxabar kaana kaadiban wa anna quraysh qad izdaadat xiqdan wa adaan lil islam wal muslimin aada musab ila alxabasha bu mu xamee ne dëgg-dëgg ndeke lii ñuy wax du benn dëgg waa quraysh dañ koy wax rek ngir yokk fitna bi loolu gaa yi naan yokk ci xar mi kawar musab daal delluwaat éthiopie foofu la nekk nekk fa fatara min az-zaman mu nekk fa lu yàgg ba bis am ñu jóge mag ñëw jaayante ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam muy bay al aqba al ula bi loolu amee ay nit ci mbooloo ci jamonoy aj atum fukk ak benn ca gàddaay ca yónni ga ci bi isawa ñu gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ci atam fukk ak ñaar encore kon gis ngeen Musab nu mu yàgg Éthiopie atam fukk ak benn am na gàdd am na jaayante bu njëkk bi atam fukk ak ñaar am na ñaareelu jaayante atam fukk ak ñaar nag moo gën a gën a bëri ñi jaayante woon ndax keroog ay sang ci Medina bokk nañ ci looloo tax Musab bi mu jaayantee ba pare nag ci la ko yonent bi woolu bi mu ñëwee yonent bi ne ko àndal ak ñi nga jàngal leen beneen bu ñuy jàngee fii mooy xool leen musab lan moo tax yonent bi woo ko ne ko dama nga jàngal ñi c'est parce que waxoon naa leen sànq musab bi mu duggee ci lislaam lan moo ko yitteloon jaamu yàlla ak jàng moo tax comme formation bi am na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ne mën na ko moo tax bi waa Madina duggee ci diine yonent bi woo ko ne ko demal nga jàngal leen àndal ak moom nga jàngal leen parce que jàng na voilà kon mënoo nekk ci mbooloo te jàngoo boo fi nekkee te jàngoo da nga fi da ngay sonal nit ñi rek parce que mënoo a defal nit ñi dara fan lan la yónni ba nga def fa dara foo ñu jàng nañu ubbiwaat nañu ubbiwaat daara yi ubbiwaat téere yi góorgóorlu ku nekk bul xeeb fi nga toll ku nekk bul xeeb fi nga toll gàddul téere bi nga mën a gàddu nga dem ci ki nga tane mu jàngal la ko jullit du rëy mbokk yi xam naa dars musab bu ñu moytul dana nekk ñaari dars yéen laay déglu de dars musab ragal naa mu nekk ñaari dars parce que gee jot na te damay dem encore université léegi nii su ma paree fii bi laa jël taxi dem université kon lu ma doon doon ñaan ñu arrêté ko fii boo amee ay question incha allah ñu def ci wala ay taaliq incha allah buñ jullegee sa jeudi bii di ñëw ñu eggali ko foofu ñu ngi tàmbalee safiru daawa al ula ila al madina mooy départ am nag dem Medina incha allah biiznillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu